wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bu ñu jiitalee kant borom bi tabaraka wa taala di ko dimbandiku di ñaan mu jéggal nu sunuy bakkaar te musal nu ci sunu ayu bopp ak sunu ñaawtee fi jëf di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla dolli xéewal ak jàmm ci moom ak saxaabaam ak képp ku topp ak njubam ila yawmi diin gannaaw ba mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bunt bi ñu war a waxtaanee aljannatu wa naimuha wannaaru wa adabuha maanaam aljanna ak lenn ci li suñu boroom tabaraka wa taala dige ci xéewal bu mu fay xéewal jaamam yi nga xam ne ñoom la gërëm ba ñu tàbbi fa waaye itam safara ak mbugal lenn ci mbugal mi suñu boroom tabaraka wa taala di mbugal ñi nga xam ne ñoo yeyoo tàbbi fa muy bunt boo xam ne nag jar na di waxtaane doonte néew na lu ñu koy waxtaane ndax dafa tàbbi ci ponk bu lool ci ponk yi imaan te mooy al imaanu bil yawmil axir gëm bis ba nga xam ne mooy bis bu mujj ba di bis pénc di bisu yowmal xiyaam gëm aljanna ak safara dafa tabbi ci biir gëm bis boobu nga xam ne ngëm du mën a mat li fekk li fekk nit ki gëmu ko gëm bis boobu danañ gis lu bari borom bi tabaraka wa taala bu tuddee ngëm yàlla bari na lu mu cay teg gëm bis bu mujj boobu ñëw na ci aaya yu bari ak itam ci ahadis yoo xam ne yu limu la yoo xam ne borom bi day wax ne lool day ku gëm yàlla gëm bis bu mujj ba noonu la war a def bokk na ca laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma al axir am ngeen royukaay ci ndawul yàlla lii mu yónni royukaay bu rafet waaye ci koo xam ne yaakaar na dajeeg boroomam tabaraka wa taala yaakaar na teew ca bis boobee nga xam ne mooy bis bu mujj ba nga xam ne ñëpp danañ fa teew aljanna ak safara nag ñoom ñaar ñooy ñaari kër yu mujj yi ci nit ak jinne ñaari kër ya ñuy mujj ëllëg ñaari kër yooyu la su mbir yépp demee ba jeex ba suñu boroom atte bi ne fii ñaari kër yooyu mooy kër yu mujj yi suñ boroom wax ko ne fariqun fil janna wa fariqun fi sair ay juróom-ñaar ci suratu suura mu ne boobaa dana am ab kuréel boo xam ne ña nga ca aljanna te mooy ña texe yàlla na ci yàlla boole beneen kuréel mu ne ñoom ña nga ca safara te mooy ña texe bi yàlla na ci yàlla musal loolu tax kon war nañuy waxtaane ñaari kër yooyu kër gi nga xam ne mooy këru xéewal gi di këru aljanna ñi di ko waxtaane ngir jullit bi mën a dolli ko xemmemteef ca kër googa ak la fa nekk ci ay xéewal te suñu borom tudd ci lu bare bare bare bari ci alquran yonent bi alayhi salaatu wasalaam itam tudd ci lu bari ci sunna waaye ñuy waxtaane kër ga nga xam ne it mooy këru mbugal ga ngir ñu mën koo wattandiku te moom itam lu bari ca mbugal ma fay xew suñu boroom tudd na ko ci alquran yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeral ko ci sunna su ko defee jaam bi mën a jaamu yàlla boole diggante yaakaar ak ragal di jaamu yàlla di yaakaar yërmandeem di yaakaar xéewal ga mu diggee di aljanna waaye itam nag di ragal mbugalam ma nga xam ne moom la tëkkoo ca safara te suñu boroom dafa tagg jaam ñi nga xam ne noon la ñuy mel dañuy boole yaakaar ak ragal suñu borom bi muy melal yonent yi ne innahum kaanu yusaaricuuna fi lxayraat wa yadcuunana ragaban wa rahaba wa kaanu lana xaashiciina ay juróom-ñeent fukk suratul anbiya mu ne ñoom day dañu daan gaaw di jëm ci lu baax lépp luñ leen wax ne lu baax la dañuy gaaw jëm ca duñ ko wàcc sax yusaaricuuna fi lxayraat wa yad'unana dañu ma daan jaamu di ma ñaan ragaban wa rahaban boole yaakaar li ma dige ci ay xéewal waaye ragal li ma tëkkoo ci ay mbugal mu ne ñoom ñu day dañ daan toroxlu ñeel suñu borom tabaraka wa taala borom bi dal wax ne wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadcuuhu xawfan wa tamaa inna rahmatallahi qaribun min almuxsinin surtul araf ay juróom fukk ak juróom benn suñ boroom ne bu leen yàq ci kaw suuf gannaaw bu ñu ko yéwénalee gannaaw bu ñu leeralee ak mbaax aku njub bu keneen ñëw di tasaare leneen lu wuuteeku mbaax wala leneen lu wuteeku njub mu ne dee leen ñaan yàlla boole ragal ak xemmem xawfan wa tamaa xawfan ngeen di ragal mbugalam wa tamaan ngeen di xemmem di yaakaar xéewalam ak yërmandeem mu ne yërmande yàlla de lu jege la ñi nga xam ne dañuy sellal loolu kon day wuuteeg lenn ci li nga xam ne ñenn ñi danañ ko di wax di wax ne ñoom jaamuwuñu yàlla ngir yaakaar aljanna bàyyiwuñu ak moyit ngir ragal safara waaye daal dañ koo def rek ngir bëgg yàlla wane ne loolu mooy daraja bi gën a kawe fekk na loolu njuumte la daraja bi gën a kawe ci jaamu mooy daraja bi yonent yi nekkoon yonent yi ñoom jaamu suñu borom tabaraka wa taala ñoo ci pare kaw ñépp ba suñu boroom bu leen di tudd day njëkk a saxal nangul googu ñu ko nangul ci ak jaamu wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin li ibadina al mursalin kon nag yonent yooyu la suñu boroom wax ne ñoom yad'unana raghaban wa rahaban yonent yooyu dañ doon jaamu yàlla ngir xemmem aljanna ak itam di ragal safara loolu sax wax la boo xam ne njuumte bu rëy la boo xam ne sax teg juluwul sax euh, ku gëm yàlla di ko wax ndax aljanna la fa nekk ci ay xéewal su fekkee nit ki nee na moom amu ci soxla xemmeemu ko safara itam la ci mbugal ko wax ne itam ragalu ko loolu ko li muy tekki mooy nangulul suñu borom tabaraka wa ak ngóoram ndax ngëm yàlla balaa mat dëgg day boole ñett mooy almahabba wa xawf wal raja dëgg la bëgg googu ñu wax bëgg suñu boroom tabaraka wa taala moo jiitu lépp dafa war a rëy lool ci jullit bi waaye téewul nag mu war caa boole yaakaar yërmandeem ak li mu digge ci xéewal waaye téewul itam nag mu war a ragal itam li mu tëkkoo ci mbugal ndax ngóor gu ma dëgg loolu lay boole day baax def xéewal goo xam ne fu waay nekk yaa ngi koy yëg ba tax nga bëgg moo tax ñu naan alhamdulilahi rabbil alamin xéewal ak suñu borom gi tabaraka wa taala lu waay gàtt gàtt xel eh, yaa ngi koy yëg la nga ca mën a yëg ndax nee su ngeen ko doon wàññi mënu leen koo xam nu mu toll moom xéewal gi waaye teewul ñuy yaakaar moo tax ñuy wax arrahmani rahim di yaakaar yërmande suñu borom tabaraka wa di ragal moo tax ñuy wax maliki yawmi diin borom bis bi nga xam ne mooy bisu fay ba te gannaaw kenn ku ne ci nun yaa ngi jëf te réglé guñ la wax li ci baax ak li ci baaxul kon bis ba ñu lay wara a réglé bis boobu bis bu jara xalaat la bis bu jara ragal la mooy tax ñetti aaya yooyu su ko nit ki dëggalee rek ci lay daldi am iman bu ma tëkk alhamdulilahi rabbil alamin muy dëggal bëgg gi nga bëgg yàlla arrahmani rahim muy dëggal yaakaar gi nga yaakaar yàlla maliki yawmiddin muy dëggal ragal gi nga ragal yàlla borom bi tabaraka wa taala del wax ne di tagg jaamam yi nga xam ne ñoom la gërëm mu ne tatajaafa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaa wa mimma razaqnaahum yunfiquun suratu sajda aaya fukk ak juróom benn suñu borom ne sama jaam yooyu day bu guddee ba nit ñi tëdd ñoom dañuy bàyyi lal ba fee dem di jaamu yàlla néew na lool lu ñuy tëdd wa qalilan min al-layli ma yahja'un lu néew la ñuy tëdd yad'una rabbahum ñuy ñaan seen borom di ko jaamu xawfan wa tamaa boole ragal ak xemmem nee na ñuy dundalee di dépenser ci li nga xam ne moom laa leen war sëgal kon loolu ay tegtal la yoo xam ne day wane ne kon jaam bi war na di xemmem aljanna waaye di ragal safara xemmem nga nag day laaj nga xam la suñu borom tabaraka wa taala dige la nga ca mën a xam safara itam pour mën koo ragal nga xam lenn ci la ca suñu borom tabaraka wa taala koo ci xeeti mbugal bokk na nag ci xikma yi tax suñu borom tabaraka wa amal al aljanna ak safara moom rek moo xam la tax mu amal leen waaye bokk na ci xikma yi yi tax mu amal ko mooy ne gannaaw nit ñi seeni jëf dafa wuute seeni pay itam dafa war a wuute ñoo xam ne bokkuñu lu ñu jëf kii jëf lu baax kii jëf safaanu mbaax ñoom ñaar ñëpp bu ñu bokkee genn pay loolu bu boobaa du nekk ak maanu moo tax borom bi ne am najal ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fi l ard am najalu lmuttaqina kal fujjar mu ne waaw ndax dangeen a defe ne damay def yamale ñi gëm yàlla di jëf lu baax ma yamale leen ak ñi dëng di yàq ci kaw suuf wala ma yemale ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ak ñi nga xam ne ay kàccoor lañ ñu jubadi lañ ndax da ngeen jàpp ne dama leen di yemale mu ne dalika zannu alladina kafaru mu ne ñii weddi yàlla loolu lañ yaakaar jàpp nañ ne ñëpp a yem jàpp nañ ne moom kane ca jàkka jàkk jaamu yàlla def la ko fa yàlla digal ak kane ci beneen barab boo xam ne moom mooy yàlla rek lañ fay def ñu ne ñoom ñëpp daal ñoo yam jaami yàlla lañ yàlla dana leen yërëm mu waxaat ne afa najalul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa taxkumuun suratul qalam ay fanweer rek juróom mu ne waaw ndax da ngeen a jàpp ne damay yamale jullit ñi ak kàccoor yi mu ne ku atte loolu day sab atte dëng na lool afa najalul muslimina kal mujrimin jaaduwut kon looloo tax waruñoo bokk ak pay gannaaw jëf yi dafa wuute te gannaaw jëf ju nekk boroom dana gis fayam fa man yaamal misqaala darratin xayran yora wa man yaamal misqaala shar darratin sharran yora nee na ku jëf lu baax lu mu néew néew néew da nga gis fayam waaye ku jëf safaanu mbaax muy lu bon lu mu néew néew moom it da nga gis fayam ya nag duñu bokk ndax xayr ak shar lu baax ak lu bon bokkut moo tax seeni fay itam suñu ñëwee duñ bokk moo tax borom bi naan jazaan wifaqa jazaan wifaqa fay goo xam ne day dëppoo ak jëf ja borom jëf fay gu yàllay fay rek day fekk ne dëppoo na ak jëf ja kooka jëf ba yeeyoo fay googa safara nag li ci ñëw lépp ci ay aaya yi ciy wax ak i ahadis xajul ci wenn waxtaan waaye dina am lu ñu ci tudd rek ngir mu nekk ab fàttali dina nekk ab soññ mbir la yoo xam ne nag dafa bokk ci alxayb li nga xam ne doomu aadama mënu koo yëg ci yëgukaayam yi ko yàlla jox muy du luñ mën a dégg du luñ mën a gis du luñ mën a làmb mën a mos ba xam lu muy saf du luñ mën a xeeñtu itam ba xam lu muy xeeñ yëgukaay yooyu doomu adama am lumu ci mënta xam rek day daal di tàbbi ci alxayb moo tax borom bi ne alladina yuminuuna bil xaybi dafa bokk ci ngëm nga gëm loo xam ne xaybu la muy faddu na ci say yëgukaayi bopp mënoo koo xam buñ la ko xibaarul moo tax kon aljanna ak safara luñ ciy wax rek ci alquran lay jóge ak ci waxi yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy xadis foofu rek lañ ko mën a xamee suñ borom ne fattaqu naar allati waquduha annaas walxijaara uiddat lilkafirin suratul baqara aya ñaar fukk ak ñeent mu ne na ngeen wattandiku na ngeen ragal ragal nag niñ koy tekkee ci wolof di wax na ragal yàlla mais baat bi ci arab li muy tekki mooy jëf loola fegal mbugalum suñu boroom tabaraka wa taala waaye na ragal naa dara rek te moytuwoo ko loolu du ca tax mucc loolu du ca tax a mucc moo tax mu ne fattaqu naar na ngeen ragal safara na ngeen wattandiku safara jëf lu leen tey tax a mucc safara woowu nga xam ne nee na mattam la koy tax a tàkk nee na nit la ak i xeer xam ngeen ne xeer moom daf koy gën a dolli tàkk-tàkk xam ngeen ne safara wi gën a mën a tàkk gën a naqaree fay mooy safara wi tàkkee ci ay xeer ba mel ne volcan safara woowu boo ca sottee ndox sax du fay ndax xeer yuy takk la moo tax mu ne waquuduha annaas wal xijaara nee na nit mooy matt ma ak ay xeer xam xeer xeere ñoom kenn mbugalu leen waaye ñoom dañ koy gën a alimenté pour mu gën a tàkk mu ne nag safara woowu ñi ngi ko waajal dël ko ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla uiddat lil kaafiriin ñu jële ci abdullah ibnu omar radiallahu anhuma an rasulillahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qaal ida stadda alxarru fa abridu an ilsalaa fa inna siddat alxarri min fayxi jahannam muttafaqun alayh yonente bi alayhi salatu wasalaam ne bu bëccëgatee ba mu tàng lool mu ne na ngeen serlu ba tax ñuy bëgg nit ki di yendal ñu wax yendal looy def ba waxtu woowu jot digg njolloor nga arrêté loola yendal noppalu fi barab tuuti mu ne taruk tàngoor woowu di ñëw digg bëccëg nee na cóola tàngoor la wu jógee ci jahannam ñu jële ci Abdullah ibn Omar mu jële ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne naarukum haadihi allati tuuqiduuna juz'un waaxidun min sab'iina juz'an min xarri jahannam qaalu wallahi in kaana lakaatiya ya rasula allah qaala fa innaha fuddilat bi tis'atin wa sittiina juz'a kulluhunna mislu xarriha rawaahu tirmidi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne seen safara wii ngeen di taale safaraw adduna wii mu ne benn xaaj la ci juróom ñaar fukki xaaj ci tàngooru safaraw yowmal xiyam bi mu yi ne ko wallahi safara wii day doy na sëkk ci mën a mbugal nit mu ne leen safara woowee day appee na ko juróom benn fukk ak juróom ñeent yoo xam ne benn bu ci nekk tànge na comme ni benn bii tànge kon safara bii nga xam ne moom lañuy jëfandikoo fii benn xaaj la ci juróom ñaar fukki xaaj ñu andi ci benn fii bàyyi juróom benn fukk ak juróom-ñeent kon tàngoor ba jéggi na dayo lool safara nag am na ay tur yu limu bokk na ci ay turam aljaxiim suñ borom mi ngi wax ne wala tusalu an ashaabil jahim kenn du la laaj waa jahim waa safara bu ëllëgee suratul baqara la téeméer ak fukk ak juróom-ñeent bokk na ci turam jahannam te mooy tur bi ci gën a bari lu muy dikk suñ boroom ne qul lilladina kafaru sa tuglabuuna wa tuxsaruuna ila jahannam wa bisa almihaad surat ali imran ay fukk ak ñaar mu ne waxal ñi weddi yàlla ne leen dees na leen gañe ñi gëm yàlla danañ leen gañe te danañ leen jiital yóbbu leen jahannam jahannama mi nga xam ne nee na mu doon sab lal sa tëddukaay tëddukaay bu bon nga am bokk na ci ay turam laza laza li muy tekki mooy takk-takk safara wu takk làmmiñ yooyu génn nga xam ne àndul ak benn saxar loolu moo tudd lava moom la borom bi naan kalla innaha lava nazaatan lishawa suratul maarij aaya fukk ak juróom bokk na ci ay turam saqar suñ borom di wax ne sa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wala tazar lawaaxatun lilbashar mu ne kooku nga xam ne dafa déggalul suñu borom tabaraka wa taala nee na xalkat naa tàbbi saxar mu ne saxar nag soo ko xamul safara la woo xam ne laa tubqi wala tabar nee na buy lakk du bàyyi dara bokk na ci ay turam itam ay ba muy suratul mudassir ñaar fukk ak juróom benn sair borom bi ne wa yasla saira innahu kaana fi ahlihi masrura suratul inshiqaq ay fukk ak ñaar bokk na ci ay turam haawiya suñu borom ne wa amma man xaffat mawazinuhu fa ummuhu haawiya wa ma adraka ma hiya naarun xaamiya haawiya mooy pax mu xóot moo xam ne nit ki day yurul ci biir day xalaw xalaw yi ci biir suñ borom ne haawiya boobu ne soo xamul lu mu wa ma adraka ma hiya xamal ne naarun sabara la woo xam ne xaamiya wu tàng jër la suratu qaria ay doom ñeent bokk na ci ay turam alxutama suñ borom ne kalla la yumbadanna fi lxutama wa ma adraka mal xutama naarullahi almuqada allati tattaliu ala al afida borom ne kooku nga xam ne day dajale alal yaxsabu anna maalahu axlada jàpp ne ku am alal bari alal doo faatu doo fi jóg mu ne kalla loolu mu yaakaar day dana wuuteeg la am ndax layun badanna bis dana ñëw ñu sànni ko fil xutama ci biir safara woowu ñu naan xotama mu ne xotama nag soo xamul wa ma adraka mal xotama naarullahi almuqada mooy safaraw yàlla wi nga xam ne dañ koo xam koo xam ba mu tàkk lool tattaliu alal afida nee na dafay alaw tiku ay xol innaha alayhim muqsada fi amadin mumaddada nee na boobaa dañ leen ciy tëj ak ay kenu yoo xam ne yu la yooyu weñ yoo xam ne moom la ñuy gàll ci bunt ba mu nekk loo xam ne day tëju lool suratul humata aaya ñeent loolu kon lenn la ci tur yi safara yi bu juróom-ñaari tur aljahim jahannam laza saqar haawiya sha'ir xotama amma taraayu mbugal ba nag suñu borom tabaraka wa rek moo xam na mu toll wax na ne fa yawma idin laa yuadibu adabahu ahad wala yusiqu wasaqahu ahad nee na bu keroogee mbugalum suñu borom nee na kenn mënta mbugal mbugal mu mel noonu nee na na muy yeewe itam nañuy yeewe ña nga xam ne ñoo fay dugg nañu leen di jénge jéng booba nee na kenn mënta jéng nit jéng bu mel noonu moom la naan xuduuhu fa qulluuh summa aljahima salluuh summa fi silsilatin zaruha sabuuna ziraan faslukuuh innahu kaana laa yuminu billahi alazim wala yaxuddu ala taami almiskin kooku nga xam ne moo taxee ni la borom bi naan xuduuhu jàpp leen ko fa xulluuhu ngeen jéng ko summa aljahima salluuh ngeen sóob ko ci biir jahannam mu ne fii silsilatin zaruha sabuna siraa mu ne ceen goo xam ne gudde na juróom ñaar fukki ziraa juróom ñaar fukki xasab mu ne faslu ko nee na yeew leen ko ci ceen gu mel noonu moo tax mu ne wala yoosiqu wasaqahu ahad suuratul fajr ay ñaar fukk ak juróom ak ñaar fukk ak juróom benn ñu jële ci Nu'maan ibnu Basiir radiyallahu anhu qaal sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ahwana ahli nnaari azaban yawma alqiyama la rajulun tuudau fi axmasi qadamayhi jamratun yagli biha minha dimhaqu muttafaqun alayh yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ki gën a woyof ci waa safara mbugal nga xam ne moo gën a woyof le nee na nit lay doon koo xam ne dañuy teg ci suufu laxul tànkam xalu safara woo xam ne nee na ak te nee na kooku moo gën a wayex ci waa safara mbugal wala yaasubillah amma ña nekk safara seenu ñam ak seenu naan suñ borom ne inna sajarata zaqum taamul athim am na garab gu ñuy tuddee zaqum fii buñ ko doon misaal moom la ñuy tuddee garabu suuruur garab la goo xam ne dég yu gudd lay yor yoo xam ne yu ñaw la waxuma rek baat bi loolu lay firi ndax barab bu nekk garab ga fa ne mën naa am garab ga du am ca yeneen barab ya maanaam fa alxuraan doon wàcc garab googa am fa mën naa am garab ga wóorul ba xam am na féem déet waaye garab gi mu nuróol ci ñàngaay ak tar ci ay dég fii ci nun mooy li ñuy tuddee suuruur dem ci àll bi dañ ko xam garab gu mel noonu la borom bi ne mooy ñamu waa safara taamul asim nee na mooy ñamu ñi defoon bàkkaar ba tab di safara mu ne kël muhli yaxli fil butun nee na garab googu nag dafay tàng comme goudron nee dafay bax ci biir nit ki su ko lekkee nee na noonu goudron mel xam ne boo koy laal mu taq la te fu mu la taq day ànd ak der ba dem nee na garab googu suñu ko lekkee noonu lay mel wala yasu bi fa mu ne ka xalyil xamim na muy baxe mooy ndox mu tàng ba fa degare tàngaay bayam nee na ndox mooma na muy baxe noonu la garab googu di baxe su fekkente ne lekk nañ ko moom la daan laysa lahum taamun illa min daria lu tuddewaat la yusminu wala yuxni min juux amuñu wenn ñam wu ñuy lekk lu dul garab googu nga xam ne noonu la ñange ci ay dëkk noonu la wexe moo tax mu ne laa yusminu garab googu nee na ñam la woo xam ne ku ko lekk du la duufal te wala yuxni min joo te nee na du faju xiif du fajub xiif amma seenug naan borom bi ne min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid nee na lañ leen di nàndale mooy lay génn ci yaramu waa safara ci deret joo xam ne ju way la nee na loola mooy doon seenu naan mu dellu waxaat ne wa in yastaqiisu yuqaasu bi ma in kal muhli yaswi l wujuha bisa sharab wa at muttafaqa suratul kahf mu ne waa safara bu ñu xettali ko mar lool bay ñaan ndox mu ñu naan mu ne yuqaasu danañ leen xettalee bi ma in kal muhli ndox mu mel ne godron godron bu ñu tàngal nee na bu jubee xar kanam gi rek xar kanam dafay lakk yeswil wujuh waaw tàngaay bi tax na ku ko jubalee sa gémmiñ rek balaa egsi rek deru xar kanam bi moom day daal di xoyam moo tax mu ne bi sa saraab googu naan day baaxul wa saat mu ne loolu day ku doon loo xam ne moom ngay xetli ko yow day kon la gay xetli ko lu bon la borom bi dala wax ne wa asxaabu shimaal xam ngeen yow yowmal xiyaam nit ñi dañuy séddalikoo ñetti xaaj wax na ko ci suratu alwaqia wa kuntum azwajan salaata fa ashaabul maymanati ma ashaabul maymana wa ashaabul masamati ma ashaabul masama wa saabiquuna saabiquun amaa ñi nga xam nag ñooy ashaabu simaar muy ñi féete wetuk càmmoñ muy góos bi mu ne ma ashaabu simaar mu ne ndax xam nga ñooñu ci lu ñu ne fii samuumin wa xamiim wa zillin min yaxmuum laa baaridin wala karim innahum kaanu qabla dalika mutrafin wa kaanu yusirruuna ala alxinsi aladim wa kaanu yaquluuna a ida mitna wa kunna turaban wa idaman a inna la mabudun aw abauna al awalun mu ne ñooñu ñi ngi nekk ci ngelaw loo xam ne lu tàng jër lay doon mooy sa moom ànd ak ndox moo xam ne itam mu tàng la ba fa mën a yem ci tàngaay ànd ak ker goo xam ne nee na yax moom la keppaaruk safara la xam ngeen ne safara buy takk dana am ker waaye ker googa ku fa toog yaakaar naa ne doo yëgub seddaay moo tax mu ne laa baari din nee na seddul de keruk safara seddul boo taaloon ci safara buy takk bu jëneer bi jëmee kaw dana amuk takk der day mel dafa am ker waaye ker googa nee na ku fa toog laa baari din wala karim du ker gu sedd du ker gu tedd itam nee na ñoom fu mel noonu la ñuy toog yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ne wa man saala annaasa li yusriya bihi maala kaana xumushan fi wajhihi yawma alqiyamati wa radfan yakuluhu min jahannam wa man saa fal yuqil wa man saa fal yuksir yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa tudd ñi nga xam ne rek ñoom lañ may ñu laaj mu ne laaj day jaaduwul ci koo xam ne ndaw la lu am kattan amug wér nee na kooku wërta laaj nee na koo xam ne itam am na wërta mu ne koo xam ne nag day laaj nit ñi ngir bëgg a am alal ci kaw nit ñi nee na alal jooju bu yowmal xiyaamee dañ koy def mu mel ne ay saafu ak i lañset di ko xottee xar kanamam def ko itam mu mel ne ay xeer yu dëgër yoo xam ne daf koy wan wa radd fan yakuluhu min jahannam yonente bi alayhi salatu wasalaam nag ne ah ku mu neex nga néewal ko ku mu neexit nga baril ko wa man shaa fal yuqil wa man shaa fal yuksir kon daal laaj laaj boo xam ne doonoo ko war a laaj di wër di laaj nit ñi ngir bañ a sonn wala ngir bëgg a yokk sa alal ci kaw nit ñi ci lu dul aajo joo xam ne lislaam daf laa may nga mën a laaj nee na loolu lay jur bu ëllëgee loolu lay jural borom suñu borom tabaraka wa taala wax ne su attee jaam yi ba pare dañuy daal di jiital nag ñi nga xam ne ñoo texee di yóbbu leen safara wasiqa alladina kafaru ila jahannama zumara malaaka yi dañ daan dañ leen di jiital jiital ñi nga xam ne ñoo texee di yóbbu leen jahannam nee nañu nekk ay mbooloo ay kuréelu kuréel ndax kenn ku nekk la ko réeral ak ka ko kooka moo koy jiite moom la borom bi naan wa ja'alnaahum a'immatan yad'uuna ila naar firawna ak ñi mel ne moom nee na def naa leen ñuy ay njiit waaye njiit lañ yoo xam ne dañuy jiite ñi topp ànd ak ñoom dem safara moom la leen yawma nad'u kulla bi imaamihim mu ne atta ida jaauha futihat abwaabuha mu ne suñu dikkee nag ba egsi buntu jahannam nee na ñu daal ubbi buntu ya wa qaala lahum xasanatuha gardien ya nga xam ne ñoo nekk ca safara malaaka ya nga xam ne yàlla da leen a bind na malaaka yoo xam ne yàlla da leen a bind dara du seen liggéey lu may nekk ci safara ku ñëw ñoom ñoo koy yóbbu fa nga xam ne foofaa war a nekk wàccuwaayam moom la borom bi naan alayha malaikatun xilaatun shidat mu ne safara day ay malaaka nga fa yoo xam ne yu am doole lañu xilaaw waaye shidat ñu tar lañu itam laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun nee na duñu mooy yàlla ci lu mu leen digal rek ne leen def leen ko loolu la ñuy def dégluwuñu keneen wa yafaluuna ma yumaruun la ñu leen digal rek la ñuy def ñoo ñu nag ku ñëw di leen romb di dugg safara dañ lay laaj ne alam yatikum rusulun minkum yatluuna alaykum ayati rabbikum wa yundirunakum liqaa yawmikum hada malaaka yi ñoom dañoo jàpp ne safara ku ko dégg xam ne am na waroo cee tàmbi waroon nga fexe ba mu ci moo tax ñu ne leen waaw yéen xanaa ay yonent dikkuñu woon yoo xam ne ci yéen lañ bokk doon nit doon leen jàngal aayay suñu borom yi di leen wattandikuloo bis bi xanaa amul woon ku leen jox avertissement ci bis bi xaaloo balaa ñu ne axa kay ay yonent ñëwoon nañ wax nu ko de walakin xaqat kalimatul azabi alal kafirin waaye kay xanaa kay kaddu mbugal gi suñu borom yëkkati woon dafa yey ci képp koo xam ne dafa weddi ku weddi yàlla moom fu mu jaar dafay yeyoo kaddu mbugal gi nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala yëkkati ne dana mbugal ñi nga xam ne dañ ko betti ñu ah, gannaaw noonu la demee nag udxulu abwaaba jahannam kon nag jahannama ko dugg leen xaalidina fiiha te nag da ngeen fii sax dakk fa bi sa maswal mutakabbiriin ñu ne fii day wàccuwaay la bu bon ci koo xam ne da doon rëy rëylu ba nanguwul a def ndigali borom bi tabaraka wa taala fii mooy wàccuwaayam tey alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin mu ne ma ndox amul ci jahannama wàccuwaay dëkkukaay ñeel képp koo xam ne daf doon rëy rëy lu nanguwul a topp ndigalu borom bi tabaraka wa taala borom bi tabaraka wa taala ne wahum yastariquuna fiha nee na dañuy yuuxu ci biir sawara di wax naan rabbana axrijna naamal salihan gayra alladi kunna naamal yàlla génne nu soo nu génnee danañ def lu baax lu bokkul ak lan doon def suñ boroom tontu leen ne leen awalam nu ammirkum maa yatazakkaru fiihi man tazakkar wa jaakum nadir ndax ci àdduna dundaluma leen fa woon may leen fa temps boo xam ne ku bëgg woon a fàttali ko fàttali ko xaj na fa am nga fa ay at ñaar fukki at fanweeri at ñeent fukki at juróom fukki at at yu bari temps bu bare baree bari amoon ngeen ko àdduna moo tax temps bi ñuy am fii ci àdduna lu seer a seer kenn waru koo sàggane moom la leen borom bi wax ne amoon ngeen ci àdduna espace boo xam ne temps boo xam ne jubbanti ko xajoon na fa te itam yabaloon naa ku leen di waar di leen fàttali man nga ne sax damaa fàtte waaye amoon nga temps te itam ku doon fàttali mi ngi fi woon te suñu borom ci ak mbaaxam jaam bi lu mu yàgg yàgg yàgg ci ak mooy bis bu tuubee ca waxtu wam war a tuub waxuñu mu dem bay sukuraat waaye peeg sukuraatagul xar-xarleegul su tuubee ak lu mu yàgg yàgg ci ak mooy su tuub ga sellee suñu borom tabaraka wa taala da koy jëggal ndax borom bi nee ne mbugal mi ma leen di mbugal doyewu ma ko dara maa yafalu llahu bi azabikum in shakartum wa amantum ah yàlla nee na yàlla lu muy doyee mbugal lépp bu leen defee ne yàlla daf ne rek il faut rek ma mbugal leen déedéet nee na doo yow ko dara bu ñëpp tuuboon nekk ci lu baax mu tàmbal ñëpp aljanna kenn du dem safara nee na doo yow ko dara mbugal mi maa yafalu llahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana allahu shakiran alima nee na bu ngeen santoon xéewal gi leen yàlla defal gëm ko doyewul dara mbugal leen kon du leen mbugal moo tax tuub lu nit ki yàgg-yàgg ci ak mooy bu tuubee rek suñu borom tabaraka wa taala ko moo tax am na waajoo xam ne dafa dëngoon lool rey juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent ne nag léegi dafa ne daal dafa bëgg a tuub ndax mën naa tuub tegtal leen ko ki fi ëpp xam-xam dama bëgg ngeen tegtal ma ki fi ëpp xam-xam ma dem ci moom laaj ko ma xam ndax man mënati ma mënati na maa tuubam déet ndax bu ma tuubee dañ ma jégal ñu tegtal ko benn labbe boo xam ne euh, labbe la boo xam ne labbe rek li ëpp ci ñoom ñoom jaamu yàlla la ñuy gën a def ci am xam-xam moom la alquran di wax inna min al ahbar wa ruhbaan ahbar yi ñooy fóore yi ñooy boroom xam-xam yi ruhbaan yi nag ñooy obbaat yi xam dañuy dem ci àll ba ne ci aw doj wéet rek di jaam léeg-léeg duñ ko boole sax ak xam-xam mu dem ci kooku nga xam ne moom dafa dëddu àdduna ba bàyyi nit ñi bi mu ko nee damaa rey juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent mënta muñ sax mu eggale li muy wax dafa dal di daru moom nëbbu ay bëtam ne ko yow kay alku nga yow kay mënatoo tuub waaja daal di koy rey ne ko kon ma mottali téeméer rey ko muy téeméer mu daal di ne waaw ndax am na keneen ku ngeen ma mën a tegtal ñu tekkal ko keneen koo xam ne nag moom boroom xam-xam la bi mu ñëwee mu ne ko ndax ma ne maa tuub mu ne ko waaw ana lan moo dox sa diggante ak yërmande yàlla ne yàlla képp koo xam ne tuub nga sellal sa tuub yërmande jooju mën nga ci dugg daal ne ko na nga jóge ci barab bi nga xam ne ci nga daan defe njaaxum yooyu suuf soosu ndax nit su fekkee barab dafa yàgg dëkk di fa def ak mooy su bëggee tuub bokk na ci li koy yombalal mu jóge foofa ndax mooy yi mu daan def dafay liyee ak barab bi dañ koy fàttali mooy yi mu daan def su rombee barab yi rek même su tuubee bëgg a bàyyi léeg-léeg mu rombaat barab ya mu daan defee mooy ga ak nit ñam daan àndal di ko def bootul da cay delluwaat waaye nag su demee ci beneen place boo xam ne moom mësu koo xam mësu faa mooy amu fa ay xarit yu mu daan àndal ci ak mooy foofa fa la gën a yombe ak tuubam sax moo tax mu ne ko da ngay génn fi nga doon defee mooy nga dem ci beneen barab boo xam ne moom mësoo faa mooy mais nag bi mu demee ba ci diggante bi bay jeexal suuf soosu nga xam ne fi la dëkkoon bay tàbbi ci seen suuf ci diggante bi rek ci la farfaatu malaaka yi yërmande yeeg malaaka yi mbugal yi nag daal di koy njëkkante ñoom ñaar ñëpp daal di yegsi malaaka yi yërmande yi daal di yegsi malaaka yi mbugal yi itam daal di kenn ku ci nee na yaa ko war a yóbbu suñu borom atte leen ne leen natt leen fu jëm fu mu ci gën a jege su fekkee fi mu jëm nga xam ne moom suuf sa sell la sum tuub la nga xam ne mosu faa moy fa la gën a jege kon tàbbi na ci yërmande yàlla su fekkente ne nag fi mu jógee nga xam ne fa la doon moyee fa la gën a jege kon mu ngi ci mbugalum yàlla ñu natt mu gën a jege benn sebra bu tuuti mu gën koo jege fi nga xam ne fa la jëmoon malaaka yërmande yi daal di koy yóbbu gis nga kon kooku li mu def lépp ci ay bàkkaar waaye teewul bi mu tuubee nga xam ne jotu la sax def genn jaamu yàlla waaye teewul borom bi tabaraka wa taala euh, jéggal na ko moo tax borom bi ne wa man yaqnatu min rahmati rabbi illa dallun nee na kenn du naagu ci yërmande yàlla dem ba ne mënatumaa am yërmande yàlla xam nga am na ñoo xam ne moom dañuy dem ba ne man daal ba boobu far continuer ci li ma ne rek xam naa ne yàlla duutuma yërmande nee na loolu nag kuréel rek ku sànku rek nee na mooy wax lool safara nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne koo xam ne am nga lu toll ne fepp suuf wala sax lu ko gën a néew ci ngëm yàlla kooku yàgg-yàgg bu defee bàkkaar itam dana génn safara moo tax ñu jëlee ci abi saïd al xudri radiallahu anhu mu jëlee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne yadxulu ahlul jannati al janna wa ahlun naar an naar suma yaqulu lahu taala axriju min an naar man kaana fi qalbihi misqaalu xabatin min xardalin min iman mu ne bu waa aljanna duggee aljanna waa safara dugg safara suñu borom dana wax ne génne leen ci safara koo xam ne xolam lu toll ne xardal muy lu tuutee tuutee tuutee tuuti ba nga xam ne bëtu keese sax du ko mën a gis lu toll noonu ci ngëm yàlla mu ne ku ngeen ko gis ci ab xolam rek génn leen ko safar fekk nag ñooñu dañ fa duggoon ngir seeni bàkkaar waaye gannaaw ngëm yàlla amoon nañ ca lu néew néew néew néew rek dinañ mujj génn safar kon safara noonu la demee wala yaasu bi la fa nekk ci mbugal yàlla rek moo xam nu mu toll waaye misaalum safara wii ci àdduna rek doy na sëkk ci ñu mën cee sukkandikoo ngir ragal safara wale xam nañ ne safara wii kenn mënu cee muñ dara dara dara dara lu mu néew néew néew kenn mënu ko cee muñ te dégg ngeen ni yonente bi alayhi salaatu wax ne noonu la rawaatee ak safara wale ba tax na kon lépp lu ñu wax ne dana tax a mucc ci safara jullit bi war na cee góorgóorlu waaye lépp lu ñu wax ne itam dana ca tax a tàbbi jullit bi war naa sori lool